sama vie privée franchement bu ma see jox ay da nga wax ni moom moo la ëmbal da nga wax euh, la République loolu na amul parce que nit ñi ñu koy wax. maa ngi waat ci Maulana Cheikh Ibrahima Niass. Hmm? mën naa wax ne sama dëgg yaay laa taxaw instant bi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 billahi wallahi laa leen di waatal ba may dem sax dama bëggoon kese ñu woo ko avertir ko mu bàyyi ma ma mën a dem sama yoon.